baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentam Seydina Mouhamadou Imamil Mahdi ñu ngi ñaanal Chérif Abdoulahi yàlla na fi yàgg te wér yàlla na ko fi yàlla yàggal yàggal fi ahlu bayti bi yàggal fi mbooleem xulafaay mbag yàggal fi mbooleem jullit lii nag bu ngeen ci gisee ab woote la ni ko yalla waxee ci alquran istajibu lillahi wa li rasuli iza daakum li ma yalla moni ni na ngeen wuyji ji wuyji ji ab yonentam bu ñu leen wooyee ci loo xamante ni da leen di jariñ wote bi nag jariñ kese la ñu ngi koy wootee ci ay at yoo xamante ni lekk lolo booba ak léegi ñu ngi ñaan ci barke bay la yalla ñu ci yalla may ndam ñi woote ñan la mooy njabootu mam Samba Yacine Mbaye mbuyu mbayen 2 ak mbayeen annexe muy ëtt bii nga xamante ni mooy ëttu maam Samba Yacine Mbaye ak ëtt bële nga xamante ni mooy ëtt annexe bi nga xamante ni mooy ëttu Baye Malick Souaré kër Baye mbay ñang ñoom ak ëtt boobu daal ëtt boobu yëpp bi nga xamante ni ëtt bii moo ko jur mooy mbayeen annex ñooy woote bis boo xamante ni bis boobu mu ngi tombe ak àjjuma le 21 ci weer wii ñu ne incha allah di ñaan ci barke Baye Laye war may sayidina isa yalla nañ ci yalla yobbu ak jam muy 21 décembre ci wéru de euh, wéru décembre 2018 ñu ngi ñaan yalla nañ ci yalla may ndam kan moy taxawé bis bi Serigne Cheikh mbacké lay bis bi nak ñu ngi koy wo jam ñepp goor jigen mag ak ndaw ci ndigalul kan sayidina Baye Abdoulaye Thiaw Laye ak njabotou Baye lay gépp kan mo koy taxawé serigne Cheikh ci ëtt bii nag ñu ngi ciy jiital kan suñu borom ëtt bàyyi libaas loo mi nga xamante ne dañ koy ñaanal mu yàgg fi te mu ñu ko tuddee tudd nañ njaboot gi yépp mu ngi ñaanal suñu imaam bàyyi njiin loo ak njaboot gi ñu ñu ëmb ñépp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul mooy ñi nekk ci ëtt bi ak ñi nekk ci ëtt bële ak ñi nekk extérieur ñoom ñépp national international ñoo booloo di def bis bi di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ci barke Baye Laay ki koy taxawee yàlla may ko ndam muy Serigne Cheikh Mbacke Laay ak ay rakam programme bi ni muy tëddee nan la mooy na mu daan tëddee bu ñu xëyee ci suba gi incha allah 9h dinañ def kaamil ci ëtt bi di ñaan ci barke Baye yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñaanal ko nag suñuy néew yépp kaamil boobu képp ku mus a jóge ci ëtt bi ak ëtt bële ak ku cosaanoo ci maam Samba Yaasin ñun ñépp ñu ngi dajaloo def ko nuit des morts di ñaanal suñuy néew ak néewi islam yi yépp yàlla ko yàlla nangu bu ñu jàngee kaamil ba pare incha allah dinañ defaral waddeen yi ak siise siise yi ak ak ak yi dinañ leen defal ak looyeen yi ay xewal yu ñu xewloo bu ñu xéewloo ba pare incha allah dinañ xaar añ yi bu ñu añee ba pare nag 16h la def mise en place xam ngeen ni Cheikh Mbacke mi taxaw ci bis bi wax dëgg yàlla moom du xaar kenn bu ngeen moytuwul da di ñëw fekk ko ci place bi 16h la ñuy def mise en place incha allah mu ànd ak ay frères am ay magam ak ay rakkam. ñëw ñu gunge ko mu taxawee bis bi ndam lu ko yàlla ma sa may yàlla ci yàlla boole bis bi ci barke Baye Laay wa may naa Issa loolu daal moo doon woote bi di ñaan ci barke Baye Laay bis bi ñu dëkkmal muy le 21 décembre incha allah waa Mbayeen 2 ak annexe di ñaanal seeni néew yàlla nañ ci yàlla yóbbu mayu ci ndam wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah